nee na mu ngi lay nuyu baax di la siyaare di am mbégte ak kontaan ci yow goraw ba mu doon am nee na xolam gën naa sedd di guy ndax yàlla dogal na ni ko sëñ Njaay xasida waxee rek diggante sëñ Cheikh sëñ Abdou Lahad moom yaakaar naa ne ak mbooloo mi kenn ku rekk jiwaalo seere nga ci ay kàddu yu bari sëriñ bi seere ko ci moom te loolu nekkul fa dama ko koy faral di wax lu baree baree baree bari sëñ Abdoulaat teew naa béréb bi bare yoo xam ne sëñ Cheikh mi néew ko mu na sëñ seex de murid saadix la wallahi azim loolu wax na ko ba tàyyi wax naa ko sëñ Cheikh mi nga xam ni tamit loolu moo wala ngaan ba ci mbooloo mu àndal yépp muy waa daara ji yépp ndax kat nit moom koy àndal ku nekk rek kaas wa nahli bi nahli la sëñ Tuubaa waxoon isa man nahlu isa man nahlu xaazaaw yàlla dogal na sëñ Cheikh def na ko ci ñoom kon sëñ Abdoulaat Mbàkke nee na mu ngi leen di nuyu bu baax mu mel ni xam ngeen ne ni mu ko waxee léegi fan yëpp yàlla dogal nekkul fi léegi lay doog a dugg ci dëkk bi wallaay azim te seen bis bi moo tax bis bi moo tax mu ne bisu sëñ Cheikh si la moom ñoom fépp fu mu mën a fekk ci àdduna boo fekkoon ba France sax damay jaral ma dagg bii ñëw fekkee si ko ngir jëmmi xasida yi waaye ngir jëmmi mbooloo mi ak liggéey sëñ Tuubaa bu réy bi ngeen di liggéey rawatina ki jiwaalo gi rawatina ci àdduna bi yëpp mën ko bañ a fekkee dontele dafay ñëw dontele am fi ñetti minutes saafuwante ak yéen gis leen xolam sett mu delluwaat loolu moo waral mu teew gi jotaay bi sëriñ Cheikh sëriñ bi nee mu ngi leen nuyu bu baax di la siyaare bu wér yow ak mbooloom yépp di leen ñaanal yàlla ay yentub jëmmi sëriñ Tuubaa ci barkeb yi lépp lu ngeen ci dagaan yàlla ngeen am lu kawe seen jot ci barke sëriñ Tuubaa ak xasida yi sëriñ Ndiaye sëriñ bi nee na mu ngi leen di siyaare bu baax yow ak jëmm yu tedd yi fi teew yépp mboolem koo xam ne wàcc si nga ci bis bi te bis rek xasida yi tax laa jóg ngi jëmmi sëriñ Tuubaa sëriñ mu ngi leen ñaanal yàlla ay yentub jëmmi sëriñ Tuubaa yàlla na nekk say yokkute àdduna ak àllaaxira ci barke xasida yi sëriñ bi nee na mu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp nee na jataay bii ku fi ñëw xam ne jataay bii jataayub sëriñ Tuubaa ndax ku ne xam ne yonent sallallaahu alayhi wa sallam nee na borom xam bind nañ ko sëriñ Tuubaa wax na ko ci Masaaliku Jinaan toog jublu xel rek sarax la waxuma la nag toog jublu xel di jàng xasida yi nga xam ne borom bi ko suñu borom tabaaraka wa la dogalee mu wàcce ko ci kaw suuf yonent bu nekk am na karaama karaama yi mooy Jibril mu daan wàcc di ñëw sëñ Tuubaa moom suñu borom tabaraka wa taala tànn ko mu ñëw sëñ Tuubaa jël ca loxoom ba bind ne karaamati xattu yadi fi xidmatil mu ay yadi waxaadani bil af yadi allahumma lil karami nga xam ne allahumma lil karami ñu bari dañ koy bàyyi xel waaye mooy yàlla sama tabaraka wa taala moo méngale ak teraanga gi xewal nga xam ne sëñ Tuubaa nee na yónent bu nekk am na kéemtaan boo demee ca tasawudu sixaat wala ci xaside yu baree bari tasawudu subaan sëñ Tuubaa di leeral na yonent bi am na karaam waaye moom karaamam moom sëñ Tuubaa mooy xasida yi mu mel ni loolu déggin mu mel ni loolu wax ju rëy rëy la joo xam ne déggin wu rëy la laaj rawatina xasida yi nga xam ne sëñ Tuubaa wax na ne xasidati faqat qazaid al kiram wali taqudu abadan xeyral maram sëñ Tuubaa mel ni xasida yi ci la jëloon def ngànnaayam def léppam ni ko sëñ Jaay waxee léegi matxu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa man walaahu yuxni an suyuufi wal armaax nga xam ne sëñ Tuubaa ne na taggu rasulaay sallallahu alayhi wasallam muy xasidaam yi ci la moo nekkoon ngànnaayam bu mu dul doon xeex di ko jàllu nasaraan yi te loolu wér na inni bi bil ulumi wa bituqa abdan qadiman wal muhayminu shahidu bu yàlla defee sëñ bi nee na nag ñi jàng xasida yi suñu borom dimbali leen kattana leen taw feexal leen ku yàlla dimbale nga jàng xasida suñu ablaate na nga sant yàlla li xeer yi wa àllin bi na boobu nga xam ne jaam yi li àdduna di rëy rëy rëy dara indiwul ñu lu dul mooy suñu borom dañ suñ maam aadama dëkkee di ko jéggalu ba suñu borom jéggal ko ñu nit mel ni kon am nañ ci waaso wu rëy sëñ Tuubaa ñu dëxañ ko ci xasida yi ne képp koo xam yaa ngi jàngi sama xasida yi maa ngi ñaan yow sama borom yàlla na ko jéggal kon nag ku yàlla dimbale jàng xasida sëñ Tuubaa nee na war ngaa sant yàlla bu baax sëñ Abdoulaye nee na war ngaa sant sëñ Tuubaa wér sëñ bi nee na moom day wax dëgg yàlla su fekkonte ne jiwaalo gi ni ko sëñ jaay waxee bu fi seet ñoñam ñi nga xam ne ñoo koy dimbale ci liggéey sëñ Tuubaa mooy ci xasida mooy ñi nga xam ñu jàngal xasida yi ndax xasida ko ku ne xam na ne moom ngay jàng mu lay defar te doo ko yëg ndax Sëñ Tuubaa moo ko waxoon suñu borom ku ne xam na ne xalimaam ki waxoon ne lu bii munawwarun bi nuuril waxyi waxaada lii xayral ulumil muhyi te loolu nag leeraa gi googu Sëñ Tuubaa di wax ne mu ngi bàyyeekoo ci leeru wax yi bu ngi jàpp ne dafa yem ci moom mi ko bind waaye mboolem ku koy jàng rek su borom dalay dimbale ndax xasida ngay jàng ñu lay sol xam-xam yoo xam ne di la defar sa jëmm mel nu ne noo xam ne ku ko gis ku ne ku la gis xam ne yow mi ko defar nga loolu xasida rek moo ko mën sëñ Abdul Ahad ne ne loolu kon yàlla sama borom dogal na mboolem ku jàng xasida loolu mu wax gis nga ko na yaakaar ba ne fu ñu koy na ngeen noppete ceeloon suñu borom dana leen nangul te sëñ Tuubaa waxoon na suñu borom ci masa maraax jaali bi tu maraaxim ne ko wasilu ne képp ku fi teew ku nekk nga mën a jàng wala nga di ko teewlu nee na am na yaakaar suñu borom gën ji la nga doon sàkku àdduna ak àllaaxira suñu borom na la ko def te soo fi bàyyeekoo di nga ba dootoo defat dootoo defat suñu borom dara lu ko naqari suñu Abdallah ne moo ngi koy ñaan waaye mu ngi ñaani képp ku fi teew yàlla boo ñee ne moo ngi ñaan képp ku fi teew yàlla na loolu war a ngaan ci sëriñ bi mel na ni nee bu sañoon kenn ku ne ci mbooloo mu dana la jox loxo saafo ant ak yow xamal la ne teewaloo sëñ Cheikh si la moom nga teewal waaye nee na xat-xat yi moo tax waaye nee na moo ngi siyaare ñëpp di ñaan daal ci barkeb Sëriñ Tuubaa képp ku fi teew rek yàlla na sama borom faj sa aajo saayir ak baatit nee borom moo sàkku ci yeneen bi li koy wéral mooy antal karim anal xadim daxaru uddiw fii kasamaa muy jàng xasida suñu ablaat nee na suñu borom yéen salaa salaam sëñ moo wax ne rasulullah salaa salaam moo ma nekk di ab jaamam waaye nekk di liggéey rasulullah salaa salaam mu waxaat ne sëñ tubaab bi ko suñu borom tabalee garaat mu jàkkal rasulaay ne ko antal karimu yow yaay agi tedd ji yi xadiimu man maay ki lay liggéeyal man sëriñ Tuubaa daaran uddiimu li fekk jamono yooyu sax sëñ Abdulaat ne na jamono gi sax nag mooy xasida yi ñu jàng ndax saa bu ñu koy jàng ku ne xam ne ne am na bindkat yi wax ne mboolem koo xam ne da ngay jël benn bind boo xam ne da ngay teg rasulaay salaam nga di ko jàn ñi di ko jàng ko bindoon su borom daraje dara ci fekk te ku ne xam na ne sëñ Tuubaa bu ne dërën uddi moom fekk jamono mu ngi sax mooy xasida yi moom du dañ ne fii ko mën ne kon nag saa ne fii ko mooy salaatu ala te loolu sëriñ bi ne li ci war a xam mooy ñu xam ne kon sëñ Tuubaa bu ne sëñ Tuubaa moo fi nekk ba faw sëñ Tuubaa ku yàlla dogal fii ba adduna yi tukki sama borom dogal indi la nangaloo sëñ Tuubaa bee boo xam ne mooy sa pet adduna ak alaxira te loolu ma ko bind ndax sëñ Tuubaa kaaba gi rasulullah sallallahu alayhi wasallam suñu borom ni mu ko fonkee ne jaalallaahu kaabatal baytal xaraama qiyaaman linnaasi wa sural xaraam wal ko fonk ko lool sëñ Tuubaa ñëw jël xalimaam tawaafu man alay ankara indal ilaahi wa nabi la képp kuy wër kaaba gi sëñ Tuubaa nee na bañ ma nangaloo ma nee na boo santee suñu borom boo ne ko labbayka suñu borom du la sant dinaan la déedéet sëñ tubaa jël xalimaam ne qulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquna maaraam wala baaba ñi foog ne loolu wax juy taj ndax sëñ tubaa garaat bi ko may dëxëral uddiimu moo ko tubaa ko moom te xasaa inu rabbi futti at li wasaasa li xëy asaa dunya waraw barsax kon sëñ abdulaat na kon sant sëñ tubaa bu wér doolee sant suñu borom tabaraka wa taala moom mi ni booleeg jëmm ji di sëriñ tubaa ndax sëñ tubaa kat afawtu rabbi qabla adim jalla dégg nga sëñ tubaa nee na wallaahu akbar sëñ Tuubaa ne na afawtu rabbi na afawtu rabbi xabla aadabin jalla xabla aadabin jalla kullu talaamisin wa kullu talaamisin lillaahi aqbala lillaahi mooy mooy suñu defar àdduna ak àllaaxira kon ñu bokk taalibe sëñ Tuubaa yi sëñ nanu sëriñ Tuubaa nee na fàggul nanu lu jiitu ñuy bind aadama lu aadama te loolu. te loolu. mooy taalibeem yii. mooy taalibeem yii. fekk na yàlla jox ko ba mu signé ko ba na te fekke ne yàlla suñu borom jox ko ko ba mu signé ko ba nangul ko ak balaa. hadiyati min al ilahi wa rasuli ak balaa xayra sawaabin min al jihaadi xubbilaa ca minal baax xarim la Sëñ Tuubaa wax te Sëñ Tuubaa wax na ne. sama borom lépp lu ma ko ñaan man Sëñ Tuubaa dama koy jox ba noppi te du ko te du ko jëlaat ataytani jamia duna salabi wali taqudu sula waxta talabi ca wakkaane aqan aleyna na su kon Sëriñ Abdou Lahad daal nee na kàddu yi da koy gàttal waaye daal fii moom ku fi tàbbi ku nekk war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax. sëriñ bi nee na kon nañ gën a wóolu sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax a baax. te wóolu gin koy wóolu nag. nee na bu nu ko teg ci ay waxi kese. la ca gën a wóor. la ca gën a wóor. li sëriñ Tuubaa wax rek moo wér. te ab liggéeyam mooy xasida yii. kon nag nañ ci jàpp. te bañ koo booleeg dara. courant bii kat. sëriñ Abdou nee na courant bii kat. bu fi amul woon. kenn du gis kenn. xaside yii nag. xaside yii mooy courant bi ci kër sëriñ ku bëgg a leeral. ku bëgg leeral. jàpp ci. ku bëgg defar. ku bëgg a defar. jàpp ci. jàpp ku bëgg leeru ëllëg. ku bëgg leeru ak njëriñul tey. jàpp ci. nen sëñ sëñ Abdou Lahad Mbàkke ne loolu mooy li wér lii firnde ji sëñ Abdou Lahad Mbàkke ne lii firnde ji mooy classe examen mooy classe ak examen professeur ba professeur ba bu joxee fooy yi bu joxee fooy ku soxla kaasum ndox mën na la koo may soxla kaasum ndox mën na la koo may waaye nag du la waxtaan loo waaye waaye boo fay waxtaan nag waaye boo fay waxtaan nag dafa am heure bu jot. dañuy laaj fooy yëpp. dañuy daal di laaj fooy yëpp. ku kenn ku ci nekk. la nga jëfoon rek. la nga jëfoon rek. moom ngay am ca fooy ba. moo tax sëñ Tuubaa jox ñu xaside yii. loolu moo tax sëñ Tuubaa jox ñu xaside yii. pour ñu bañ a am jot. pour ñu bañ a am jot. ba bu ëllëgee. ba mu waxee ni. ba mu waxee ni. ku aju ci man ku aju ci man texe nga. àdduna ak àllaaxira. àdduna ak àllaaxira. mbégteem fii. di nga am mbégte fii. am mbégteem fële. am mbégteem fële. waaye ku bàyyi xaside yi nag. waaye kon yow di nga remplace ko remplacer leneen déedéet Mbàkke. ndax ay musique ngay déglu. ndax ay po ak leneen ak leneen. waaye ku jàpp ci xaside yii. Ah, di am àdduna di am àllaaxira. loolu moo tax Sëñ Tuubaa wàcceel na ko ciy jàng ci xasida ci yéen. kon nag képp ku ci jàng xasida ci yéen. nit di la wax loo. nit di la wax loo. Ah, amaana yaa ngi jàng xasida waaye amoo xasida. nee na amaana yaa ngi jàng xasida waaye amoo xasida. kon nag xasida moom bu ko kenn booleeg dara. nee na yi daal bu ko kenn booleeg dara. jànkatu xasida nag. jànkatu xasida nag. ak ku du jàng xasida. nañ leen boole ci benn néeg rek. neen na nee na ku ko bëgg a xam daal boole leen ci benn néeg rek. boo leen xoolee xàmmee leen. soo leen xoolee xàmmee leen ki jàng xasida ak ki du jàng xasida. Serigne Touba kon Serigne Touba mooy lii nañ ci jàpp bu baax Serigne Cheikh Sylla mii nag nit ku baax la nit ku yaatu la ku nangoo sonn ci doomu aadama ku nangoo sonn nit ci doomu aadama la kon nag yéen ñu ko fekk si yéen ñu ko fekk si ab laat nee na mu ngi leen di seedeel loolu ngeen xam ne daal ñii moom ñu baax a baax lañ ñu defaru lañ day def ci nit. li xasida di def ci nit. mi ngi ci ñoom. mi ngi ci ñoom. di Serigne Touba di def ci nit. mi ngi ci ñoom. kon yal na yàlla dëgëral leen. amit barki Serigne Touba. te taxawu leen. ngir jëmmi Serigne Touba. ak mboolem ñu fi teew ñëpp. mu ne gis na fi wëllëreem léegi sëñ Moustapha Diagne mii toog. sëñ bi nee na mu ngi lay siyaar baax. ak ku mel ni sëñ Ndiaye xasida. lool. nga xam ne yàgg na lool. Oh, euh, ak mbokki taalib yi fi daje yëpp. ak mbokki daje yëpp. rawatina nag waa dëkk bi. rawatina bi. Euh, Sidi Mokhtar Mbacke yàlla yàggal ko. sëriñ bi nee na ngi ñaanal sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér. te wéral ko lool. te wéral ko ak sëñ Muntaxa. bu baax a baax a baax. ci barkeb sëriñ Tuubaa ak sëriñ Amsatu Mbacke mi nga xamante taxawee jotaay bii. moom mooy taxawee jataay bii nga xam ne mooy jëwriñ ci xasida yi. ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. jëmm la. jëmm la. dafa ame tànk. dafa amee tànk. ami bët. ami bët. nopp. am loxo. ami loxo. nekk daa loo fare kenn ku ci nekk nag dafa am loo fare woo. waaye xel mi koy conduire. waaye xel mi koy conduire. ba nga xam fa nga jëm. ba nga xam fa nga jëm. ka ko fare mooy am mooy suñ am sa ci xasida yi mooy jëruñu xasida yi moom mooy jëruñu xasida yi ci bu tàkkee oto bu tàkkee ah mën naa daw bëccëg de bu amuti làmp mën naa daw bëccëg bu amuti làmp de waaye bu guddee ñëpp xam lu doon de loolu mooy loolu mooy si am sa njëriñu ci xasida yi moo loolu mooy njëriñu ci xasida yi waaye nag ay pono waaye nag ay pono mën naa am de moteur mën naa am. ay photo yu ñuy toog te mën naa photo yu ñuy toog it mën naa am de. waaye yooyu yëpp daal. waaye yooyu yëpp daal. mën naa nekk bëccëg de. mën naa nekk bëccëg de. waaye bu bëccëgee ñëpp xàmmee ko. waaye su bëccëgee waaye su guddi jotee rek ñëpp xàmmee ko. waaw ah, ñëpp ko xàmmee. ñëpp dañ ko xàmmee de dañu xam ne lii moom amul lamp. kon nag. kon nag. xaside yi xaside yi. noonu la mel. noonu la mel. jëmm ñi jàng xaside yi tamit. jëmm ñi jàng xaside yi tamit. noonu la mel. la ñu mel. ndax daara jii kat. intervention yooyu nekk dinaa ko def. si Abdou Lahad Mbacké nee na intervention bu nekk di dina ko def ci dëkk bi. ah waaye sëñ Cheikh Sylla mii waaye kër sañ Cheikh Sylla mii de. mosuma woo. nee na mosul koo woo de. wala Baye Assis Gueye mii. ne ko ah sa eh, ndongo yee kat nangam ak nangam. ne ko ah, ndongo yee kat nangam ak nangam nangam ak nangam da caa xew. kon nag la ko waral. kon nag la ko waral. mooy xel mu defaru. mooy xel mu defaru. kon comme sëñ Tuubaa dafa waxoon ne. ndax comme sëñ Tuubaa dafa waxoon ne. moo gisati kulliyati te aqarat wa xayra xayraatin la day ko doxira. ne moo gisatoon te wa xayra xayraatin la day ko la day ko doxirat. la day ko doxirat. la mu ne. sama lépp sama lépp. lu ci mujj ñëw rek. lu ci mujj ñëw rek. nekk kéemaan nekk di nekk kéemtaan. ndax dëkk bii. ndax ay mag ko ko sosoon. mag ñooña. di defaru di defaru di magi jëmm di magi jëmm waaye tey jii seeni doom waaye tey jii seeni doom li ñu taxawee li ñu taxawee mooy na na mag ñi taxawee woon mooy na mag ñi taxawee woon mag ñi ay eh, borom bejjaaw lañ te mag ñi léegi ay borom bejjaaw lañ waaye xale yi léegi waaye xale yi léegi koo ci séen koo ci séen da ngay toog moom xam ne xale la dangay ngay toog moom xam ne kii xale la waaye boo koy séen waaye boo koy séen ab mag nga koy teg kon la ko waral kon la ko waral jikko la ay at. waaye du ay at. kon nag. nañu jàpp bi. nañu jàpp sëriñ bi. te téye ko. te téye ko. te xam ne moo ñu jëriñ tey. te xam ne moo ñu jëriñ tey. moo ñu jëriñ fa la ñu jëm. ndax. ndax. sëriñ bi. sëriñ bi. yaatuwaayam. yaatuwaayam. ak yërmandeem. ak yërmandeem. kenn gisu ko. ci kenn. ci kenn. ak bëggam lu baax. loolu nag. day wane ne moo ko moom waaye bu ko moomul woon du ko ko jaral kon nag nañu ko jàpp nañu ko jàpp te way ci deng te am ci fulla te am ci fayda te xam ne jamono ji ngi nekk sëriñ bi nee na xamul ndax yéen a ngi koy seetlu wala leen ko ndax lii nii li tax sëriñ Amsatu Mbàkke taxawal ko naa ne sax ñu bari ñu ngi ciy yëngu. nee na xam na ne sax ñu baree bari ñu ngi ciy yëngu. waaye settantalu dëgg dëgg mbir mi. waaye settantalu dëgg dëgg mbir mi. ndax ndax. jamono ji jamono ji nit ñi dañoo xiif ci lu baax. nit ñi dañoo ci lu baax. ku leen téyewul. ku leen téyewul. dinañ wuti leneen. dinañ xale boo ci toogal. xale boo ci jox ma turu yàlla. jox ma turu sàngam gu may jàng. ay alxuraan yu may def. wala nangam ay alxuraan yu may def. wala leneen wala leneen. wala leneen wala leneen. léegi nag léegi nag. li nu mën a dimbali. li nu mën a dimbali. mooy nañu fexe ba xale yii. mooy nañu fexe ba xale yii. ñu xërtal leen ci xaside yi. ñu xërtal leen ci xaside yi. moo gën turu yàlla. moo gën turu yàlla. moo gën laneen. moo gën laneen. moo gën laneen. te léegi. te léegi. ñëpp a waaxu bëgg lu baax. jëm ci bëgg lu baax. lu baax nag. lu baax nag. mënta gën a rëy lii. yii looloo tax. loolu moo tax. sëriñ bi sëriñ bi. taxawal lii. taxawal lii. ndax ñëpp daw wuti ko. ndax tax ñëpp daw wuti ko. kon nag. kon nag. yàlla yàlla guddal fanam. yàlla yàlla guddal fanam. te defal ko ak wér. te defal ko ak wér. ak mboolem jëwriñam yi nga xam ne teew nañ ci bërëb bi. ak mboolem jëwriñam yi nga xam ne yëpp teew nañ ci bëri bërëb bi. sant nañ ñëpp. sant nañ ñëpp. mu ngi baalu àq ñëpp. mu ngi baalu àq ñëpp. bu ñu sañoon fanaan ak yéen ba nee na bu sañoon day fanaan ak yéen ba set la woon bisu faajuj bi. waaye xam ngeen ne bisu démb bii la bi bisu faajuj bi. ak bamba a bamba fépp yi. ak waa mouvement bamba fépp bi. ñu wëlbatiku maanaam taxawal yu mel noonu mbuur. ak Dakar ak Dakar. ak Thiès muy bisu sëñ maam Thierno bi. yooyu yëpp démb teew na ci. tey jii mu bàyyi ko ci jotaay yooya. ñëwaat fii. génnaat dëkk bi war a génnaat dëkk bi war a fekkee ci yeneen jotaay waaye bu sañoon day fanaan ak yéen ndax yéen kat ku ngeen tafli di ngeen tooy dina tooy ku ngeen jàpp dina dëgër sëriñ Abdou Lahad Mbacke nee na moo ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko nee na moo ngi fasante ak yéen wëllëre di sàkku ngeen ñaanal ko jërë ngeen jëf waaw kon na ñëpp wax ne sëñ laat sa bëgg yàlla na la ko sëñ Tuubaa defal waaw ci barke xasida yi amin amin amin